jërë ngeen jëf ubbi léegi la kay gi di TV li gën a fës ci boppi xibaar yi mooy kooku nga xamante ne bii moo di Dame Sène Dame kat bu mag boobu nga xamante ne bii ma nga nekk fële ci États-Unis dafa génn def ay révélation yu doy waar a doy waar a doy waar jëmale ko ci ñii nga xamante ne bii ñoo doon puukare wu naan ay Touba jënd nañ fa ay 100 nag ak jënd nañ fa ay de 200 nag ak ñii nga xamante ne bii moo di influenceurs yi nga xamante ne bii ñoo nekk Sénégal ñi nga xamante ne bii taawil rek la ñuy liggéeyee ak koo xamante ne bii jënd na cinq nag ñu taawil ko ko ba ne kii kat cent nag la jënd wala deux cent nag la jënd gars yi ñu dem déglu révélation yooyu nga xamante ne bii daam seen andi ko ci gars yi ñu dem déglu ko. am xam ne événement xoolal ay événement daal la bañ événement. ñu wut seen influenceur bu mën a fen bu rëy laa mel rek da ngay jël dix def ko cent nga jël cent def ko mille taawi ndax taawi rek man lii mbaa jàmm la ah di bàyyi leen sëriñ si ngeen ni mbubboo bàyyi leen sëriñ si ngeen ni mbubboo bu événement jotee ku ci nekk naan jënd naa lii def naa ko ci màggal gi jarul wax sëriñ Tuubaa loolu ko defal xam na ko da mooy borom pay bu la fayee nga kontaan koon ne def leen te yàlla tax wala sa bi tax wala te màggal gi tax da ngeen bàyyi yaayu influenceurs yi ñoom jëpp gi ma leen jëppi yëpp nag parce que màggal gi ngeen jël ah dañuy wax lu amul waa ngeen jéem a bëgg lu neex nit ndax dërëm bu mu leen jox ngeen tax ngeen a taayu ba leen seen affaire yooyu ba leen seen affaire yooyu ay affaire Touba du ay caaxaan Tiwaawan du ay caaxaan Njaasaan du ay caaxaan ah yéen a ngi fone seen bi bëggul lii ngeen di def léegi xoolal kenn du ci am Serigne Touba kenn du ci am màggal kenn du ci am dara ndax tiisara tax ngeen koy def ak wadewu bu leen ñu emmerdé may leen nit ñu jàmm man jëpp naa leen trop influenceurs yi soof gi ngeen soof ah soof ngeen soof fa soof yam da yéen xoolal dërëm rek moo tax ngeen ñëw di di yaawe ni ñeeg yooyu nit ñi comprendre nañ leen de leen te ba seen jaaxaan falaa yam ak yéen nag